dafa am collectif bu ñu jox plateforme revendicative bu mu def juróom-ñaari poñ ci juróom-ñaari poñ yooyu daf benn bi daf ne woon nañu indiwaat seeni moroom yoo xam ne dañ doon daw jàng di tardé ñu def examen jàlluñu ñu mayaat leen chance ñu def remédiation jàlluñu amuñu not bi ñu leen laaj texte bi dafa wax ne boo amut loolu dañ lay génn ci système bi ñu génn leen ci système bi te ñoom ñépp ñu ngi tollook ñetti téeméer ak juróom fukk ak lu topp ci ñooñu ñeent wala juróom lan ci exclure te wax dëgg yàlla par rapport ak notes yi par rapport ak textes yi ak seeni absence noonu rek la conseil bi ma mënoon def mënutoon def leneen ñu ne nag far force dinan def tout ba indiwaat leen parce que waruñu leen dàq may wax parent yi ne leen ay la ween jàngalekat bu demee ba dàq ku muy jàngal rek am na lu ko metti waaye nag loolu rek lan mënoon def te indiwaat leen du xalaat ndax bu boobaa mën nañ fi créer loo xam ne kenn du xam lu muy nirool beneen poñ bi mooy ñu ne ñu nañu xoolaat heure départ Dakar dem dikk ndax bi ñu ñëwee dañu def ay effort fii amutoon ay fos septique ñu góor góor ba mu am fosse septique amutoon fu ñuy lekkee ñu defal leen restaurant ñuy jënd di lekk ñu gis ne dafa làqatu ñu dem waxtaan ak Dakar bi ne leen dimbali leen ñu ngeen ñuy indil ñuy jàng si. ñu leen di indil ñu leen di jëndal carte rapido di leen subventionné ñu leen di indi bés bu nekk di leen yóbbu ñu ne nag léegi prix boobu dañ fa dem dem mille ñu ne nan ko bàyyi mille ñu ne leen kon d'accord na nag yéen bàyyi nañ ko 10000 maanaam ci juróom-ñaari poñ yépp juróom benn yépp la leen nangul ba mu des beneen bi nga xam ne dañ ne tout de suite et maintenant dañuy indiwaat seen camarade leen ñu ne leen nag dëgg dëgg nag da ngeen di xam ne nit itam dafa am fu mu mën a yem ku nekk dafa am cëram. loolu la leen wax ñu ne duñ ko dégg ñetteelu poñ ba mooy ñu def ba nga xamante ne bii heure Dakar dem dikk yi danañ ko respecté ñu ne leen di leen ci waxtaan te yéen sax yéenay jiite waxtaan ak Dakar dem dikk ndax entreprise publique la ñu am seeni rotation privé ñu ne bàyyi nañ ko 10 000 carte apprenant la ñuy laaj ñu ne leen certificat d'inscription fu ngeen dem bu ngeen laajee moom la leen jox waaye nag taxul ñu bañ leen jox seen carte apprenant balaa weer wi dee balaa levant vingt di ngeen jot seen carte apprenant ñu leen wan ñu ne lanu leeral stage yeeg yi ñu war a def ñu koy tuddee immersion ñu wax leen ne leen bis bu yàlla sàkk ci téeméeri xët yi juróom ñaar fukk bi yépp da ngeen koy def xarala li ci des mooy théorie mooy cours théorie yi te xarala boobu ngeen di def di pratiquer yéen a ngi koy def jamono yi ñuy wax ak yéen même xale yooyu ñuy wax ne leen leen delloosiwaat seen morom yi bokkaloon formation nekk ci même filière bi carrosserie peinture automobile ñu nga fee Thiès nekk entreprise seen bus di def lu ñuy wax immersion te bokkuñu ci grève bi am na ñu nekk fi ci atelier bu ngeen génnee ngeen vérifier ñoom it grève ñu parce que xam nañ ne lii moo yenu maanaa juróom-ñaari poñ boo ko tegee ñu nangul la juróom benn yépp am des benn bi ah wax dëgg yàlla bu fekkee jàng rek moo la yitteel di nga jàngi la ca tege mooy ñu ne nanu yokk li ñuy liggéey matériel beeg outil ñu wax leen ne leen balaa weer wi dee di ngeen jot am na benn marché 44 milliards bu jënd ay ordinateur ay matériel quarant 44 million autant pour moi maa ngi jéglu bu jënd matériel boo xam ne dina ñëw balaa fin du mois te loolu pour TIC kese la dinañ mën a def pratique rax ca dolli nag loolu sax dañuy yokk rek waaye ayla la bu ngeen génnee yéen taskatu xabaar ngeen vérifier ci biir atelier automobile ak biir sar informatique ak serveur yi matériel boo xam ne ñeenti milliards ak genn wàll moo fi nekk loolu nag moo taxoon bi kooku coordonnateur boobu daal di menacé ne ku dañuy grève suba te bu ñuy grève ku jàng si dinga nga gis lu garaaw en tant que responsable nekk directeur des études war a sàmm njàngale meeg njàngale njàng mi war a sàmm aussi nit muy doxe ma ne ah mënuma seetaan lii ñoom ñu ñëw di fi xeex wala ñuy yàq matériel boo xam ne ñeenti milliards ak genn wàll la ñu wax autorité compétente yi ñu indi ñi nga xam ne ñoo war a respecté ñoo war a def ba nga xam ne ordre bi dañ koy respecté bi ñëwee dem ñu wax ak ñoom ci njëkk dégguñu ñu xëccoog gendarme yi ñu dàq leen dem finalement. ñu ne wéy dañoo utiliser force waaye force amu ci ndax suñuy doom lan suñuy rakk lan ñun jàng rek lañ bëgg ñu koy def te dañu ubbi suñu bunt ne leen lu ngeen soxla ñëw leen wax ak ñun luñ ci mën a def dinañ ko def lu luñ ci mënul def itam dinañ ko jox ki ko man mu defal leen ko. Eh, démb altine ah man dégg naa ne jànguñu ndax xele yi dañoo ñëw ne du ñu jàng faw rek administration wax ndax day jël ñee wala du leen jël. ma ne ah loolu de wax dëgg yàlla mbetteel la ci man ndax bokkul ak la nga xam ne moom lañ tënkoon ah loolu nag moo tax ma ne kon ah ci sama gis-gisu bopp xanaa daa am lu nekku ci ginnaaw ndax eh, bu doon njàng dong dong dong dong ah ah même su defe naa ne syndicat yi bu ñu demee ci di négocier poser plateforme juróom-benni poñ ñu reglee leen juróom eh, juróom-ñaar ñu régler leen juróom-benn. sañatuñoo wax ne dañuy continuer grève